yéeg si nañu ci xibaaru yéenekaay yi Walf Quotidien doore nag euh, conseil constitutionnel juróom-ñaari sages ya fa ne ña ngay baral liggéey ba ngir fexe ba ñu bañ a weesu àpp gi fi lekk ñaari fan ci avril lépp yemb ngir njiit réew Macky Sall ak euh, président Bassirou Diomaye fay ñu mun a jokkalante lenge yi ci anam yu mucc ayib euh, loolee la conseil constitutionnel sas njiit réew mi Macky Sall jot na ko waxtaanee démb ci ndajeb conseil des ministres yéenekaay bi di las ne juróom-ñaari sages ya ca conseil constitutionnel la bëgg nañu ñu gaawal baral mbir ya eh, ngir waxtu wa ñu bañ ko weesu Bassirou Diomaye Faye war jot ci kilifteefu bopp réew mi eh, ni ki ñaari fan ci weeru avril gi ñu jëm loolee nag njiit réew Macky Sall sas na ko ay ministre ngir ñu gaawantu eh, ci document yi ngir fexe ba passation de service ba mun a am ca na mu génnee yéen a kaabi di lo soleil xeedu ñu dégtal juree fi tukkee ci élection présidentielle yi Bassirou Diomaye Faye raw na gaaya gañe na yile wote ci doole yéen a kaabi ne téeméer boo jël ak yu toftal maanaam 54 virgule 28 euh, pour cent bokk na ci Amadou Ba di candidat bu Benno moo ca tegu am 35 virgule 69 pour cent euh, bokk na ci tamit ci jota woote di ay électeurs ci élection yi la téeméer boo ca jël juróom-benn fukk yaak benn ya euh, demoon nañu wut wote ji ni ki dimanche gi ñu weesu yéen a bi moo ñu ko yëggee yéen a bi di l'info ne njureef yaa goog tukkee ci élection tànneefu réew moom la ci ci euh, xob ya bokk na ci Habib si ak Malick Gakou ñoo jël ndadde maanaam ñoo jël ndaare ci yile wote yor-yor bi xëy ñu xam nekk euh, ki nga xamante mooy Ousmane Sonko mi béy waar wu yaatu ba tey Bassirou Diomaye fay euh, dégg monsieur le président jiitu ci élection yi am lu tolloog 54 virgule 28 pour cent yéen a réew mi quotidien ma ngoog falu na bees njiitu réew Bassirou Diomaye Diakhar fay raw na ñamu doon jonganteel xiccool réew mi bokku na ci 19 candidats yooyu le moo ca jiitu ci xayma euh, tukkee ci élection yi mu ngi ci yéen a kaabi di réew mi euh, quotidien yéen euh, a kaabi di sursoine daanaka lu bari nag jot naa soppeeku ci wetu Bassirou Diomaye fay ña ko doon wattu kaaraangeem ca campagne électorale ba daanaka yëf ya tuxu na ci loxoy waa GIGN ñooy saku ñooy watu kaaraange président bu Sénégal di Bassirou Diomaye Faye waa GIGN itamit ña ngay wattu kaaraange Ousmane Sonko yéen a kaabi di sursoine moom Bassirou Diomaye bëgg naa indi yeesal yu bees Eh, ci doxalinu réew mi bëgg na la ñu duppee fonds politique yi eh, ñu bañ ko fee jëlee waaye nag du bëree bari ci yooyu de fonds politique dañ koy wàññi eh, bokk na ci tamit ci wàllu poste directeur yi mu soxal lu bari loo xamante ne daf koy dajale kenn mun koo jiite boo jëlee DG bu BND ak FONSIS ak FONGIP ak CDC ba ci DER ak banque agricole ñoom ñëpp la fas yéene boole kenn nit mun koo jiite Bassirou Diomaye fay yemu fa gas na ba mu xóot mu fas yéene ne suul euh, conseil au conseil des collectivités territoriales bokk na ci conseil dialogue social beek au conseil euh, conseil économique et social et environnemental ñetti kuréel yii de dootul amati ci nguuram daanaka faxas na leen mu ngi ci yéen a bi di euh, source a yéen a bi di Sud Quotidien passation Jokalante Lenge ñaari fan ci avril lay doon njiitu mi Macky Sall xàllal na yoon Basirou Diomaye Faye yéen a bi di l'évidence ne mangoog lu aju ci njiitu réew mi Macky Sall démb jot naa tàggatoog Euh, askan wi rawatina euh, ndajeeb conseil des ministre gu mujj ci nguuram yéen cabinet moom la ñu doon bàkk démb tey ji ñu ngi koy xarab moom njiitu réew mi euh, Macky Sall mu ngi ci l'évidence 24 heures xëy duñu dektal njiitu réew Macky Sall gannaaw fukki ak ñaar ci bopp réew mi jot naa delloo njukkal askanu Sénégal ci ko lu xamante ne am na ko jëmee ci moom ak lañ ko sasoon ci bopp réew mi mu béy ci waaram ba yegg si fii tey ba tax na ne nguuram jeex na keneen moo ko fas yéene wutu mu delloo njukal askan wi yéen a bi di le mandat mu ngi ñuy dégtal lu aju ci li nga xamante ne mooy élection yi fi jotoon na jaar euh, jotoon na jaar ci kilifa diine yi nemmeeku leen Amadou Ba waaye nag euh, terewul dañ ko gagné ca Touba gagné ko ca Tiwaawoon yéen a bi moo ñu ko yëggee bëccëgu set setal goo xamante ne dañ ko amal ñi ñaar ñaari fan ci weeru avril ngir fexe ba Sénégal set wecc loole euh, la ñu xamle ne dootul yàgg dañ ci soobu yéen a bi di le quotidien di ñu tamit gu euh, kii di Amadou Ba euh, moom mi fës ci élection yi le ndax moo jël deuxième war a doon itamit euh, ki jiite ku jeeg politique bi ndax dina ci weyam det ndax day jox lenge ya keneen yéen kabi di turbine waxtaan ak ñu nag leneen loo xew ca Pikine musiba la jaamarloo gu métte métti dox ci diggante ñenn ci ndaw ña ña fa ne ak way takk der ya Mouhamed Diop ba ñu ne dafa faatu joxoñ ci baaraamu tuuma takk der ya ne ñoo ko méttital ba mu jaaree fa ñàkk bakkanam ña doon ñaxtu nag taal réew biisub Dakar dem dikk yàq fay woto yu bëree bëri eh, bokk na ci eh, ay jege ñaale ndem si yàlla Mouhamed Diop ne bëgg nañu yoon def liggéeyam ci googu lépp eh, dossier yéen kabidi stade mu ngi ñuy dégtal Gabon Bénin match xaritoo yi ñu doon amal digganteem ak Sénégal Sénégal moo ca jëlee ndam gagné na Gabon gagné itamit Bénin laaj dal di sampu ci jongante yi ñu waajal di éliminatoire coupe di d'Afrique Sénégal ban équipe la fas yéene taxawal digganteem ak RD